भाई आपल्या सिल दहा कांपाच्या नाही muna मुंडगर म्हणून आड्यांचे घेणे ndaw ñi kat président Ousmane Sonko lañ taw dekk buñ dekk buñ dugg ful ful ful Kër Massar en fa Pikine en fa Tamba en fa full, ful moo xew Fouta ful Saint full ful Louga ful Mbour ful Thiès ful ful moo léegi Ablaye Sylla ne comme sénégalais yi moom Sonko loon topp naa wuti jeneen yi topp ma am nga fulla de <laughs> léegi nga gis fi candidat yi dem ci katweer yi léegi nga gis fi candidat yi dem ci congolais yi léegi nga gis fi candidat yi dem ci malien yi léegi nga gis fi candidat yi dem ci nigérien yi <laughs> Ablaye Sylla loolu loolu dem ci Guinée yi daal dem ah, yi Sonko lañ topp lañ jox nopp moom lañuy ñu topp te joxe nga sa 15 millions génnee nga say oto faaw nga wax ak Guinée yi léegi daa may na leen hectare yu bëri waaye xam nga ne barki Serigne Bamba Mbacke étranger buñ gis nga adu da ngay wate waxuma la génn réew mi waaye génn adduna ngay def de waaw léegi nga gis si nag ku dem ci waa kat weer di wax ak ñoom borom kat <coughs> ji day campagne bi la tudd le président Ousmane Sonko ngi fatt waa musiba ngi waa GPS a ngi fat waaye waa Modab kenn demul ñu des ñoo karawan karawaan ñoo ngi waxtaan suba danañ amal ndaje mu mag di waxtaan wu mag a mag woo xamante si nii donga daara yeeg professeur borom xam-xam yi lan dajale ñu ñu ñu war waxtaan ci njiital Cheikh Omar Bamba Diop waaye ci imam Tayiru Fall ñu koy amale fële ci résidence Abbas Sall di ci woo sénégalais yi di ci woo patriotes yi parce que dañoo nekk ci fatt fépp waa moo daam ne kenn du dem ñu des kenn du dem ñu des parce que li leen président Ousmane Sonko defal benn homme politique da leen ko mësta defal mooy impliqué leen boole leen ci mbir mi boole leen ci réew mi ni muy doxee waaye jël liste bi jox leen ci ay place yu baax a baax a baax ba pare doyloo leen ci leen déglu moo waral ñoo ne ñoom danaan fatt fépp Cheikh Omar Bamba Diop ngi campagne dara Dramé ngi campagne soxna soxna Fatima Sahra Ndiaye ngi campagne eh, imam Tayour Fall mi président mi ngi campagne waaye nag ñu ne danañ def ay waxtaan yu am solo yoo xam ne danañ ko def fële ca résidence Abbas Sall di ci woo ñëpp